président. waa univers social ñu ñëw tey pour jàppale un peu xale institut de pédiatrie sociale institut le boo xam ne dafa dépendre ci université Cheikh Anta Diop le hmm, ministère de la santé institut institut la boo fait ne hmm, disons faj ay et ak ay notamment ay jigen qui sont yi mais en dehors aspect l'aspect bi institut bi de day former c'est-à-dire étudiants en médecine Ils ont hmm, ñëw di def stage chaque année ak euh, élèves yi jàng ci école infirmière yi aussi école infirmière ak dañuy ñëw di di jàng ni ñuy fajee xale ak euh, jigéenu wérul dernier aspect bi institut la ni dafay gëstu aussi ci affaire tout xam-xam bu jublu ci xale yi ak euh, jigéen ñi donc ñetti ñetti aspect yooyu daal mooy fonction wu institut bi. tey ñu préféré indi ginaar jox leen ko pour tamxarit loolu tamit ñu ngi leen ciy sant comme li ma waxoon sànq di leen gërëm ndax lii rek dafa neex faj sama laat ñëwaat teg ci jox leen dara ne leen yóbbu leen ngeen toogi seen kër amuñu seen fay yàlla mi am seen fay yàlla na leen fay. ah je pense que je pense que leer na moom xale yi la pour mag ñi pour ah, <laughs> am na lu ma ci bëggoon yokk nag jigéen du kootu dépense da lay wàññi ginaar gi na ngeen ko yokkee njël li waaye bu la joxee tey dépense ginaar nga ne ah waañ ba may na ma ginaar naa wàññi juróomi téeméer ba def sama poos demul yokkee leen ko njël njël lan leen wax waaye waxuñu leen ngeen wàññee ko njël yi wasalaam aw fa day taw taw taw taw xaaral jege ko jege ko tuuti.

Mariama Mariama ani Mariama ñëwal ah ñun dañoo contane. Contane ba ñun suñu suñu sant ak dafa am commencement mais amul finition parce que li rek dafa neex jaamu Yalla mënul li ay doomu adama yu indi seen doom fi. ku ne xam na ne dëkk bi na bi nga yor xalé bu xibon da paralyser ci famille du ñu mën a sax dem jaayee gerte caaf pour mën a am juróomi dërëm yu ñu satisfaire seen besoin kon bu événement di dikk lu mel ni univers social jaar fa mu jaaroon daaw may leen nag doyul tey mu indi ay ginaar ndax ginaara a gën a neex mu indi leen ko ne leen kaay leen ñëw leen jël ginaar yi ma may leen sëy na bu woowal temps 50 femmes ma may leen ginaar loolu dara fay ko ñu ngi ñaan yàlla li ngeen mën ren mën ko daaw yàlla na multiplier par 100 dëwan ci barke Serigne Fallou Mbacke ñu ñëpp fekkee kenn bañ a manqué waaw ñu ngi leen sant di leen gërëm ndax ku dimbali sa doom yow la dimbali bu doom wéree yaayam day wér papam wér mën a uti leneen xale yi buñ juddoo ñëw fii benn kilo la ñu am seenab moo ñu gàtt na ci buntu kër gi ñëw jël ñu leen dugal leen fii ñi faju ci Fandiaye yàlla baax na te ñu ngi posé 5 kilos yu teg man seen yaay damaa feebar duma nàmpal waaye mu may jàppale ci bëri maa ngi koy sant di ko gërëm ndax mënoon naa ñëw mu wan ma beneen kanam waaye daf maa beral loxo yaatal may mën a faj samay doom même démb bi ma ñëwulee damaa feebar daa wax sama papa téléphone ne ko na ñëw ndax mu jàppale xale xam nga xale bu nàmpul moom feebar na ba pare waaye alhamdulilah mu ngi ci jàpp lu mu ñu ngi koy sant lu mu mën réwén den yàlla na ko mën réwén xam